senegal na ngeen abonné yow mi setan wi di wobe te abone go ñu ngi lay ñaan nga abone ni rek la du la dikke dara te dana tax nga doole ñu ci suñu liggey video bi dina télé ak ci yow sa yuñ ko dugalee bul fàttee like video bi comme ni ñu koy waxé bo ni ñu koy defee suba ba rek ñu taw kenn ci jëwriñ ni Seydou Bassir yi ñu gën ko am ci Birane Dia bëgg ciép euh Birane gannaaw ma leen ñu ziar la fan ngeen tollu ci liggey actuellement. Eh, ñu ngi sant yàlla te wax asalaamaaleykum wa rahmatulah di sant sëriñ bi di ñaan yàlla yàggal ko fi te may ko jàmm ak njabootu si rajo waaw liggéey bi de fi ne daanaka léegi tey mu yemb eh, eh, gaa yi ñëw nañ dajale na adde yi ñu ngi ci añ yi te xam naa léegi tey mu pare. bu añ yi pare bu ñu rek. dem ci jàkka je xaar fa sëñ bi waaw. Euh, bu ñëwee waxtaan ak nit ñi nam daan waxtaan ak ñoom ñaax leen ci jaamu yàlla ak liggéey moom loolu rek lay ñaax nit ak fonk sa way waaw loolu daal euh, wax comme ni ko wax jëwrin am taxawaay bu am solo si bés bii waaw ko gannaaw biñ ko gannaaw kere bañ ko waajee bañ ko defee daaw ba passé ko nga pour bi ndax li nga def am nga si am nga si satisfaction maanaam am nga si lu kaw si jot wala déet. Euh, maa ngi ci dalee laa xam lu lu euh, lu suma njort kere ba mu commencé. ndax kere bi ñu fiy ñëw taxi lañ jël. maa kenn ñëw ci dugg. ak chauffeur bi ak suma ñaari xale. ñu jógee Dakar ñëw. bi ñëwee defe naa ne béy lañ sëñ bi jox ñu rey ko. Euh, addee ji kere biñ ko joxee cinquante mille la. te defe naa trente cinq mille sax kenn na ko joxe bu njëkkee ba ci àdd ya un million wala un million quelque euh, bon yokk na waaw nag dama ci dul gis lenn mu yéem ma ci mbiram sëñ bi ndax xam naa ne lenn lu nekk benn ci moom da nga jékki ji mu da ay million loolu moom wér nañu peng waaw moo tax bañ ci bañ ci bañ ci sóobu euh, xawoon naa diis waaye fi ne woyof na ndax bañ ci sóobu nit ñi euh, xamuñu woon ñu jëm waa ñëpp gindee ko nañu sant nañ yàlla sant ko sant it mbooloo mi ñëw waaw rawati ji waa Daaru ndax jigéen ñi fan yi yëpp ñu ngi ci jàkk ji di bale di fobere togg mi jot nañ ñëpp ñëw nañ maa ngi na euh, euh, nuyoo nag ak ngërëm suñu waa koñ ba suñu jigéeni koñ ba ma dëkk ndax ñoom dajale nañ seen addiya ñoo ko teg teg ko suma loxo ne nañ ko dañ koy def ci euh, siyaare bi xam nga loolu moom wax dëgg yàlla bu fekkoon ñëpp noonu lañ def ah dana romb fi mu toll waaye ñi ko defu di ñu leen a ñaax bu beneen yoonee ñun ñëpp ñu bokk def ko ndax liggéey bi ku ko liggéeyal moom mm. suñu mandaw nga liggéeyal suñu mandaw képp ku ko liggéeyal yàlla ngay yàlla ngay liggéeyal waaw waaw sant nañ baax gërëm nañ asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen nuyuwaat bu baax di leen ziar comme ni nga defee suba ba léegi rek def reportage ci bés bi nga xam ne mooy bés bu am solo bi di siyaare Seydou Bassir ren nag mu àlaa daw mi tuddee ko suñu doomu bàjjan Ababacar Dieng di kenn si kër Mawla si laajo ma ndaw moo waral sax mooy sababu taxaw ñu taxawal doomam Imaam Souley Dieng mi nga xam ne moom it ku nekk xam na ko si kër Seydou Bassir Imaam Souley gannaaw ba leen ziyaare la ban yéeg nga am si bés bi nga xam ne si nga bokkoon rawatina ñu si ren tuddee ko sa baay ok assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bo nek bi leen siyaar te di ñaanal khalifa Cheikh Mamadou Bassir yalla yagal ko fi lol te mam jam ak mboolem jabootu Seydi Hadji Mandaw eh, bàyyi itam ñu ngi leen di bu di rafetlu su liggéey bu bax ak mbolam ko xamne mu ngi ci bir site bi ñu am bekt nak ak contane ci bis bi nga xamne tay ji jii nañ ko suñu wayjur nga xamne kenn du wax lutax ndax jëf nako wax nako def nako doxalin na ko dundam yëpp mu ko tegoon ci jaamu yàlla liggéey rasulullaay waaye jiital ci biir liggéey bi ki nga xam ne moo doon waalidoom di waajuram di sëriñam di xaritam di soppem di léppam nga xam ne léppam jaayan na ko ci dundam moom la daan déglu ci wax moom la daan déglu ci jëf ba ni ko fi yàlla di jëlee kon nag tey bis bii nga xam ne bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ko fonde woon bokkoon ca membre yi nga xam ne ñoo ci jiitu woon gën coo ñemelewu dippeekoo ko loolu wax dëgg yàlla sant yàlla la te it lu yenu maanaa la beneen ba tekki it luy rafetlu ci ñëpp la kon loolu am nañ ci mu mbégte ñun ñi njabootam waaye mboolem kuy taalibe Seydi El Hadji Mandione dégg ko loolu dana la neex ndax neex gi lay neex mooy jëf ji nga xam ne daan na ko jëf ci kër gi te ñëpp teg seen bët kon nag tey bis bi wax dëgg neex yàlla daan nañu neex de waaye tey gën nañoo neex rawatina bi nga xam ne tuddee nañ ko suñu waajur loolu moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ok jërëjëf Baye Tam kontaan nañu ñu ne lay nuyu di leen siyaar di ñaan yàlla képp ku fi teew ak noo mën a ñëwee lay ca soxla loola muy wéer buy wér di yàlla na ko yàlla saafara buy ñàkk yàlla na ko yàlla dàq liñ fi indi muy siyaar xalifa Bassirou Omar yàlla na yàlla nangu siyaar bi ñu ngi dugg si xat mu bees jëm si meneen xat ñu koy dund yàlla nañ ci bokk dundee ko sago dundee ko naataange dundee ko xéwal dundee ko yokk ci wàll ak yàlla ak wàll ak ak képp kuñ fa toogat ak ki xëy ñëw te ñëwoo ak képp kuy taalibe Mawlaay yaa Seydi Alaaji Omar Ndaw kon ñu ngi wax alhamdulilah beneen yoon di ñaanal xalifa bi nga xam ne moo tax bis bi la xam yàlla na fi yàgg lool taxam jàmm yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk moom ak mboolem njabootu Seydi Alaaji Omar Ndaw ak képp ku bokk Seydi Alaaji Omar Ndaw ak mboolem taalibe yi mu mel ni mag ñëpp ñëw nañ ñii li nang fi jingile ngi fi euh, ngayen sandial ñu ngi fi ripa fi ñii li fi lage ma ngi fi jama gaajoo ngi fi ñëpp a ngi fi bis bi nag dafa am kenn si ñun koo xam ne sunu wéttal sunu kilifa la woon sunu magu taalibe woon sunu magu daaru la waaye sunu mbokk deret la woon muy Babacar Sadikh di doom si El Hadj Suley Jang yàlla dafa dogaloon moom ku si xamoon solo la koo xamante ni kenn ku nekk suñun xam nga ne palaasam kenn matewu yàllaa ko ko mayoon mu nekkoon si wetu sëñ bi nooy lool yomb lool bëgg lu baax lool ba bu la rombee sax doo jàpp ne kii ko tekk dara la fekk mu ngi diis gann ndax kim hàndat dem na ba defar ruuxu gi ba ku ko gis bëgg ko ku bari na ku ko seen sumi say dal ñoo jox ko ñaar loxo lamb sa boss jox jikko yo demone ba sëriñ bi motali ko ci mom gannaaw bu bayam defé ci mom lamay def ba paré koku nak ñi mbokkat bay ñoo nekk ni tay téwal ko fi magam as mustafa jang mom lañ tuddee mom lañ tuddee bis bi moom Babacar Sédikh lañ tuddee bis bi motax euh, tay fami ñeegan yépp fi téw mhm. muy ci walu meen walu gaño ñoom ñëpp a fi teew ki mag na mooy As Moustapha Dieng moom mooy taaw Alay Suley Dieng ci góor donte xam na mag ju jigéen yaa faat Dieng nelaw na yal na yàlla yërëm ko tabaal moom moo fi teew teewal fi teewu teewaa teewaa fi teew Alay Suley Dieng ndax mooy xalifaam teewee fi teewaayu Babacar Sadikh mi ñu tuddee bis bi ak jëmmi boppam ji nga xam ne taalibe si El Hadj Omar di muqadam sëriñ bi teg ko fële ca Ndofane naka lépp lu fa xewati boo fa taxawee mel na ni maa fa doy nga ma ci lépp kon ñetti tey kaska la fi teewee bu ko mooy ñi ay rakam lañ kii Babacar Dieng ñi ngeen sooroon na bàyyi ko ak Ablaye nee na hin ñoom ñëpp teew teew nañ fi ak euh, Malick ma li nga xam ne fële la bàyyi ko Ndofane jigéen ñi ñu ngi sa kër ga li leen andi mooy jëmmi bis bi kiñ ko dara jaalee muy Babacar si def nga xam ne kenn mënul ko woon loolu moo doon seen i tànk ñoo feddali kóllëre mbooloo bi moo nekk nii dajeeguñ ko sax léegi la ma ko Moustapha ma la jox boo ko defee lii mooy ñoom seen i tànk ci bis bi daan na ñëw nag naka jëkk ndax euh, taalibe lañ ci kër gi waaye seen ñëwinu tey nag dafa gën a yaatu ca nañ daan ñëwee ndax sa Sadikh ndax kenn ku nekk si ñoom mënee naa ak yow ba xëy làqu mosu leen a weerante kenn ku nekk ñoom ñi bokk baay xamul ku si moo sa weeranteeg sa morom nit teg ci bët xamul ku ko mën a wax amul amul loolu nag yàlla la soob jubóowoon nañ mëneewoon nañ daan nañ ànd si jàmm daan wéttalante daan kaf daan ree daan siq farata ñoom i neen ndax ay nit bu ñu demee bay mayantey doom mbokk gu rafet rekk ko mbokk gu rafet rekk la lii lañ siqoon ak moom moo tax tey ñoom it ñu ñëw ko ci li nga xamne mom lañ ko dara jaalee muy bis bi di siyaar tam xarit nga xamne mom lañ jagalee khalifa bashir Omar Ibn Ali yalla na fi yag lool te xam jàmm bi jaaxee rasulullah ñakoy koy di won yalla nañ ci bok di gërëm seen site bi bu baaxa baax ci teewaay bi ak jotaay bi di leen ñaan yalla ngeen dem bam nekk télévision bi barakat rasulullah ki moy khalifa gi man na sey sànni ñaari kaddu ñett ñaanal leen muy asmu sawa mu ne li mo wax doyna na waaye bi yok ci ñaari bar rek loo wax rafet na ndax ku des dese yaa ngi ci mbooloo mi waaye ñun suñu yaakaar nga ñun ndax buñ gëstooyee gisuñ Babacar Sadiq gisuñ Seynabou Dieng gisuñ Roqi Dieng gisuñ Modou gisuñ keneen gisuñ keneen ci famille Ndiéguène bi ña nekk Ndiéguène dama leen jëlale waaye buñ gëstoo gis la suñu wéttal nga tabakkan saxut bu ñaari baat sànni ko serigne bi ñu ngi lay ñaanal nga yag fi lool yow yalla roof la katan gu ñu deñ bi barakat rasulullah barki sida la jooman ndaw ma ngi nuyu ñep ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullah mu ne mu ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi bal wax mu ne mu ngi bal wax kep ko mu fi fekk kep ko xamne ne kan fekk na la tangana mu ne ndax ta tangana mu ne ta xamne hit it tusubaar jot maa ngi wax. mu ne mu ngay wax ne. ki ma jiitu li mu wax. mu ne ki kay jiitu li mu wax. muy alhamdulilah. muy alhamdulilahi rabbil alamin. yoo xam ne ay yoon. mu ne lu yoo xam ne ay yoon la. sama xol bi wax na ko. mu ne xolom bi wax na loole. rafetlu naa. mu ne rafetlu na. ki ñu tuddee bis bi. mu ne ki nga xam ne moom lañ tuddee bis bi. tey mu ne tey jëlee. fekkoon bàyyam fa mu tëdd. mu ne ku ko fekkoon fa mu tëdd. moom bàyyam. moom bàyyam. wax ko lii. wax ko lii le. dana ne bettul ma. mu ne dana wax ne lii de bettul ma de. ndax mu ne ndax. baayam mu ne ndax baayam baayam la baayam la ba pare ba pare mënoon nekk nijaayam mënoon na hit nekk nijaayam waaye mu ne waaye bi mu dajeeg bi mu dajeeg. Euh, xutbul oh, Seydul Awliya. bi mu dajeeg xutbu. Seydul Awliya Seydul Awliya. sangab waliw yi sangab waliw yi. la jël juddu ba. mu fa jël juddu ba. ak xam-xam ba ba. jaay ko jaay ko. jëndee ko taalibe jëndee ko yi taalibe. nangul ko mu ne ñu nangul ko loolee. ndax moom ñëpp bokk. mu ne ndax moom moo ñëpp bokk. maa ngi nii di gis néegu ndeyam. mu ne mu ngi gis néegu ndeyam. waa Kër Mandiaye. waa Kër Mandiaye. fa la yaayam foofu la yaayam dëkk de. moom Alaaji Suley Dieng. Absa Sarr. Absa mu ngi gisit waa Ndamen ak waa Ndaama ak waa it foofu la bokk mu ne te it foofu la bokk de mu ne njegeen sooram fa la juddoo am fa ak ay doomu baay yaayam benn rek laam am muy bàjjo mu ne fam juddoo bam juddoo benn surga baayam. benn surga baayam. ñu ne ko tuddee. ñu ne ko noo ko tuddee. baayam ne Ali. baayam ne tuddee naa ko Halil. mu ne nañ ko tuddee Souleymane. mu ne ko tuddee Souleymane. kon dana dund. suñ ko ko tuddee dana dund. loolu moo tax. mu ne loolu waral. ñu tuddee ko Souleymane ji. benn surga baayam. mu ne benn surga baayam. bambara bambara. bam fa baye ko lol yeb lool fa don indi histoire bim bi nga xamne ñew na fi la ci serignam geureum xamam mu serignam geureum xam xamam geureum jikom mu serignam geureum jikom jël jarbatam jël jël jarbaatam haqqan denk ko denk ko ko mu am ci mo am ci roxetu mu am ci roxetu ak babakar ak ña sa top ñep mu ne babakar mo juddu 1962 mu ne juddu hit cinquante neuf. mu ne ak ña ba baayam nekk fi. mu ne ba ba baayam ne fi. di déglu ndigal alaaji di déglu hit ndigal Maolana Sall Alaaji Omar Ndaw. mu dénk ko lu bari. mu dénk ko hit la bari. ci lim gën a fonk. ci lim gën a fonk. muy jàkka ji muy jàkka ji. ak jàngu bi ak jàngu bi. gi. loolu la. mu ne loolu alaaji Suley jàng la ko mu da ko def ci ñoom. ba yàlla def ba yàlla def. baabu jot a dal jàng. ñu jàngal ko hit njàng ma gaaw. set wecc nag. mu ne moom moo kalaal Alxuraan. amul guddi amul bëccëg. foo ko laaj mu gàggat la ko jàngee it ba pare jàngi xam-xam jàngi it xam-xam keroog bu baayam gaañoo bu miraas ba pare buñ miraasee ba nga xam ne pare na miraas kër gi miraas kër gi kenn ku ne xam la nga moom kenn ku ne xam la nga moom mu ne ma man nag mu ne moom damay dem ndar yokki sama xam yokki li hayaati wa inna فإذا أقمت فإذا أقمت بين الشخص فإن الشخص بينكم وإذا رحلت وإذا رحلت فزورة تذكر mu ne bi si gàtt gàtt mooy njiit. nit daal nit daal. ay waxtaan rek la. ay waxtaan rek la. kon fexeel ba. mu ne kon nañ fexe ba. boo fi jógee ba boo fi jógee. ñu wax sa waxtaan ñu waxtaan ci yow. ci yow la rafet. Babacar mu ne Babacar. na taalibe mu ne dund na it taalibe. ni ko Cheikh Omar waxee. ni ko Cheikh Omar waxee. doy na doy na. lewet na lewet na. oyof na mu ne fa ko daan téye ci mbagg. ne ko ko amul a fulla njëgën njëgën day fayu. njëgën njëgën fay fayu. del fayu mu ne baaba dal fayu. ñi nga nit leen ñi nga nekkal nit leen. ma muñ. mu moom kanaa fa li le. mu moom nag moo gën. moom fa muñ. ba nga fa kii xamul luñ ko def. te na lépp. mu ne li le. la bàyyam bëggoon ci moom. Cheikh Bassir. mi ko ràng ko ràng. defar li desoon ci moom. gërëm nañ ko de. sant nañ ko. ndax it am na lu mu amoon na lu ma amoon am na lu mu ko dolli waaye am na lu mu ko dolli ba yeesul genn góor ba yeesul genn góor njaboot mu ne mu ngi gërëm njaboot ndax ànd nañ fonkante nañ déggal nañ ko jox nañu seen kàddu jox ñu seen bopp lépp mu ne lépp. dara manqué dara manqué. sant nañ mu ne sant nañ. maa sant ñi ma fekk mu ne mu ngi sant ñoo xam ne fekk na leen. mbokk taalibe mi mu ne baabu ñëpp koo xamoon. ñëpp ko bëggoon. defe na ne tey jile. buñ ko sànnee ku ne ñetti lexlaas. ñam fekk sa alaxira dañ seddu ba baax dina jeex ta du jeex. mu ne jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf yaa Oumy Ndiaye ñu ah fay nañ leen. noo gisee bési Seydou macha allah kontaan rek. bëgg ci. dana ñaanal borom. ñi nga xam ne mooy suñu xalifa da Baye Bass ñu koy ñaanal yàlla fan ak wit yalla yagal ko fi lol tam handa wit fan dal lañ koy ñaan ay wét gu yaram ndax sha allah fa tabarakallah lepp lo xamne ni mu ngi dugg ci dar salam xeebu ci kenn ci bi fi tay ñi nekk de bi tay nga xamne ne julliti yi ñoko xol rek jàggale la ko ko tay ñu boole ak santiam jàkka ji dëkk bi la dëkk bi yëpp la bawut kenn bawut góor bawut jigéen bawut ban mag bawut ndaw ne ñëpp nañ génn di ko jàppale si ko bu ko woote wutoon nit ñi dana ñëw waaye moom rek moom moom moom noonu la mel moom lu dugg rek boole na ci ñëpp lu mu nit ñi rek loolu xelaat na ko waaw loolu du lu ko gënal moom moo joboote moo boole ñëpp ñu di ko ñaana taxawaayam bi yal na ko yàlla yàggal yàlla yàggal ko suñ kanam ba mu ko kobar kobari yàggalee ko fi wér ak wélli macha allah fa tabaarakàlla